bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki senegal yëpp noo ngi nuyu ñëpp ci turu Cheikh Mouhamadoul Mountakha di sant ñëpp di jaajëfal ñépp jataay bi itam li ko waral mooy na mu daan demee rek sëriñ bi bokk mi yi mu àndal liggéey bi waxtu amee lu leen war a defloo ci liggéey bi da leen koy loo ñoom it dañ koy def definu rafet ngir sawar ca ak bëgg ànd ak moom liggéey bi ak yéene ko ndam loolu moo tax ñu toogaat nii ci sëriñ Mamoor moom sëriñ Fàddilu sëriñ bi yónni ko ay kàddu yoo xam dafa jëm ci bokki de jullit yi rawaate na bokki sénégalais yi nga xam ne liggéey ci tool yi day seen wàll mu bëgg leen jox ndigalu tàmbali tool yi sëñ Mamoor nag bokk na jëwriñ yi nga xam ne sëñ bi da koy liggéeyloo ci liggéey bi te lu mu ko ci def loo da koy def ak yéene ak pasteef rafetal ko matal ko loolu moo bi yónni ko ngeen mu jot jotliwaat ay kàddoom jotliwaat ndigalam kon ñëpp bokk ko déglu te parce que yéen jafe incha allah. bokki jullit yi ñuy jàkkaar lool bokki taalibe yëpp noo ngi jéggulu di jottali ay kàddu yu bàyyi ko ci ku tedd ki Cheikh Ahmadul Muntaqa al xalifatul am li tariqatil muridiyya moo fi moo boole ak sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdou ak sëriñ Muntaxa Mbakke moom sëriñ Maam Mor Pakala ngir niñ ko defee woon daaw ci waxtu wii ñu doxewaat ko nañ ko doxe woon te moo di daaw waxtu wii daa tombe woon nag ñu war a doon joxe njàngum alxuraan bi ci weeru rajab ba mu tombe woon nag waxtu wi mu waroon a soññee liggéeyub tool yi mu ni woon kon ginnaaw dafa may wooteloo njàngum alxuraan mi na ca boole nañ ca boolewaale woote waale ñu tàmbali liggéeyu tool yi moo waral eh, ren jii bi nga xam ne xaw nañu am ab sore tuuti mu wax ne dafa bëgg ñu wax ko nañ ko waxee woon daaw mu xam le ni ginnaaw bu mu nuyoo bokk jullit yi nuyu bokki taalibe yi sant leen gërëm leen ci ci ndigal yi nga xam ne mi weesu na te yépp ñu jëfe ko nam ko nam ko bëgge mu ngi leen di ñaanal di ñaanal taalibe yi tawféex ak taysiir di sant bokki jullitam yépp ci nangu bi nga xam ni lépp lu mu woote ci lislaam ñu fekk ko ca di sant bokki taalibe yépp nga xam ne lépp lu mu woote nga jëmmi Sëriñ Tuubaa ñu fekk ko ca loolu moo waral mu ni nañ jot jot ay kàddoom wax ni dafa bëgg altine ji ñu jëm di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru Sha'baan ñëpp ñu ànd dellu ci yàlla wakkiluwaat ci moom euh, joxaat suñu bopp Serigne Touba gën ko koo jébbal gën a am dolli sunu yaakaar ci moom gën a rafet njort ci lim nu dig lépp nu tekki suñu bët te lay ñëwit noonu lay mel wala nu ko raw nu àndaat kon yeesalaat sunu taalibe ci moom fetliwaat sunu sunu laxasaay ci moom wëlbatiku nag li nga xam ni mooy mooy yor réew mi moo nu tax nu mën a jàmm yàlla mën a tax nu def sunu liggéey nañ ko bëgge muy dellu ci tool yi liggéey yi ñu tàmbali ko mun nag dafa bëgg bu altine bu ku xëy nañ ko daan defee rek nga xëy ci tawasul bi nga xam ne ci la si moom mooy moom mooy lépp sëriñ muy alxuraan ak xasaayit ñu tàmbalee ko lu waay man mu jàng ko bu xëyee dem ca tool yi def ko tàmbali muy loo xam ni Euh, lam ci jublu mooy waxtu wii lañ ko daan lañ ko daan def mu bañ mu mu mu romb te te defuñu ko kenn ku nekk nga am euh, pësteefub altine ji mooy sa tàmbalib liggéeyub tool noo ko tàmbalee nag baax na noo ko tàmbalee ci bis boobu rek baax na boo ci amee yéene mu wax ni kon ñiy bay ñëpp ñi tam nañ daal dellu ci tool yi tàmbali ko noo ko tàmbalee baax na ba saa yoo ko mën a àggale waaw noonu noonu noonu la ko waxee alxuraan ji itam li tax mu boole ko ci moo di lam waxoon ca woote alxuraan bii weesu bayit yi mu nu joxoon ñu jàng ko muy barakatul quraani taxmil qaari a mi minal balaa tëkkoonu taari a loola lam lam nu ci diggoon noo ngi koy gis yàlla na gis gi yokk ndax jamono xam ne barkeb alxuraan jàng li muy indi ci doomu aadama yi moo di lépp loo xam ne balaa la buy ñëw njàng kiy jàng alxuraan suñu borom dana ko ca aar lépp loo xam ne lii itam Euh, kenn xamul fu mu jugee te xamul kenn xamul fu mu yem bu dee boo dee jàngal xan te sax ci suñu borom dana la ca aar loolu moo tax mu dañu ci soññ kon nag ñu dégg ko noonu loolu rek moo doon moo waxtaan wi mu ne na ko ñëpp jàpp yëmaliwu koy nag ci ñi dem ci tool yi rek di ruuji waaye mboolem fu waay nekk di liggéey te la ngay liggéeyee la nga ci jublu mooy loo jaamoo yàlla ak loo joxe loo jox addiyee sëriñ bi foo foo mën a nekk bu dee kuy jaay la bu dee Euh, sàmm la bu dee kuy yeexantu la moo xam kum doon na xam ne bis boobu nanga ko defaat muy sa bisu tàmbali liggéey euh, def ko ci ndigalu sëriñ bi te xam ne sëriñ bi képp ku jaar ci ndigalam lim la lim la defloo nga def ko la nga bëgg lépp da nga ko ci jëlee. kàddu yooyu ne sëñ bi ne woon nañ ko jottali bu noppee jox sëñ Cheikh Abdou Latif ndax euh, suñ kàddu dafa xaw a demee noona mu leeraat leeraat ni li li ci xaw a ndam lépp. ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sàkku nag ci mboolem taalibe Serigne Touba yi mboolem bokk Serigne Touba yi ñu dimbali ñu jàpp jàpp ñaanal Cheikh Modou Mountakha mu yàgg fi tawir liggéey bi mu sembal Serigne Touba te ñëpp gis njariñ li tàmbali koo gis suñu borom dimbali ko ba mu àggale ko na mu ko bëgg te bañu am benn gàllankoor waaye moom itam lool lool lool nun taalibe yi noo koy ñaanal ñaanalale ko bokki Serigne Touba njabootu Serigne Touba gépp góor ak jigéen waaye ñaanal kilifa yi diine yëpp sëñ Mountakha mi ngi leen di sant kilifa yi diine yëpp di leen gërëm di leen ñaanal yan bi nga xam ne suñu borom yan na leen ko muy mbooloo mi leen yàlla boole te ñu war leen yóbbu ci yàlla war leen a teete leen ci lépp lu baax suñu borom dëgëral leen may leen kàttan ba lépp lu ñu ci bëgg suñu borom defal leen ko nañ ko bëgge ñaanal réew mi ñaanal waa réew mi ñaanal jullit yi ñaanal réew mépp ñaanal àdduna si suñu borom def fi jàmm loolu kaddu yi la suñ bi war nañ ko ñu ngeen ko jotali ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yalla nañ ko téwé na gëni a déwén te kenn bañ a ci suñu borom safara lepp ci barke borom Touba jëf kon nak bi sëriñ Maamoor yëkëte kaddu yi mat li kaddu yu rafet yi te ni rek la ko sëriñ bëggee won kon nak ñëpp nañ ko déggé nonu fas que yéene topé nonu te ni mu ko waxee rek ñu parce que yéene def ko ci ndigalul sëriñ bi te rafet ci ndort te yaakar ci barke xam ne buñ ko defee ni ko sëriñ bi diglee barke rek da ci wàcc sëñ Maamoor leeral na ko lu waay def da nga yeesalaat pas-pas bu yees ci jublu ci liggéey bi te fas kenn ku nekk fas yéen loo ci jëlee nga liggéeyal ci yàlla liggéey ci sëriñ Touba la ci des nga jëriñoo ko boobaa yàlla danañ ci gàttandoo ak barkeeb sëriñ bi. kàddu yi nga xam ne nag bëgg naa ko cee dolli mooy nii mu demee gis ngeen ko sëriñ Mountakha la ko ñor am na ñu koy wax loo bokk na ci lu waat ne am njàng. sëñ Maamoor mii la koy wax loo muy alxuraan muy xasida muy lu mu doon saa suy santaane am jàng sëñ Maamoor la koy santaane loo moo tax nag wax kàddu yi jóg ci réseaux sociaux yi ñëpp di wax ne sëñ Muntaxa daa santaane am jàng alxemes ci six heures demi ak ab lim jàng baax na lool lim ba it fu ko waaye mën defee baax na waaye nag luy niru ay dajaloo wala luy niru coow wala itam nag waxal sëñ bi lu mu waxut itam da ko dul jar ku am sa yéene ju baax dio ban nga ko wax rek ku ko dégg xam na lu baax la man def ko waaye nag di waxal sëriñ bi lu waxtu yag na ma sàkku ci ñu di ko wattandiku da daa man dem ba mën jur la neen képp kuy waxal sëriñ bi lu waxut mana dem ba jural la yow mi ko wax lo fitna lay doon te la daan wax it mooy da nga mere deful dara ndax lu la dal ya ko teg sa kon nañ bàyyi xel ci loolu nañuy waxal sëñ bi li wax di yam fi mi yam te bu nu fas ko yéene waaye njàngum alxamis mii ci tàkkusaan nag moom génnewul ci làmmiñu sëriñ bi kon nag nañuy wattandi ko waxal sëñ bi lu mu waxut ku ko man nag lu baax moom fu ko waaye mane na ko def ndax ku ko manoon bis bu set da nga jàng alxuraan da nga jàng xasida da nga jàng ak ñaan sëñ bi it am na xasida yu mu loon boppam yoo xam ne wane woon nañ ko ba mool ko di ko joxe yooyu itam sëñ bi ko waxoon ngir xew-xew bii ñaa ñaan yi bari na fi ñaan ko waaye mën a ñaan mu dellu ci alxuraan wala mu dellu ci mbirum sëriñ bi am na njariñ ak foo ko ñaanee waaye nag waxal ci sëñ bi lu waxut itam mën nañ ko wattandiku ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf